asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 10 décembre 2020 dañu ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy tey ubbeekoo mu mel ni ki bi di suñu lamb nag moom xëtam mu njëkk tey lam ci xëy fesal kenn la wala ñaar ñoo xam ne ni daal ku ci nekk dégg nga roi des arènes muy ki nga xam ne moom mooy Eumeu seen bu Tay Shinga ki nga xam ne nekkoon na fi roi des arènes ak ki nga xam ne moo jël ci moom roi bi di ki nga xam ne moom moo di Modou Lo mu parcelle te actuellement moo yore couronne roi des arènes bi yëglikaay bi di sunu lamb nag tey moo xëy ñëwal ñu ci ñaari mbër yooyu nga xam ne ni daal seen parcours la ñëw di dajale ñoom ñaar kan moo ci dominé ci ay chiffres bu fekkente ne ama seen la ci at moom yëglikaay bi jàpp na ne am na 41 ans maanaam ñeen ñeen fukki at ak benn bu dee ki nga xam ne moom moo di Modou Lo la 35 la am maanaam fanweeri at ak juróom yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy ñëw tey ci xëtam bu njëkk andil ñu lu mel ni ki noonu bu dee ama seen la boo xoolee nag moom yëglikaay bi jàpp na ne daal moo jiitu Modou Lo ci làmb ndax boo xoolee moom mu ngi ñëw ci làmb 15 mars 98 loolu la yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey xamal ñu ko daal di bëreeg mbër bu ñuy wax ka nga xam ne ni moom moo di Mbodj jaañ moom mooy ka mu njëkk laaleel sunu làmb xëy ñëw wax nu ko boo xoolee kii di Modou Lo ba tey yëglikaay bi mu ngi ñëw ci làmb la 4 février 2006 dëkk bëreeg bu ñuy wax Pape Sène numéro 2 yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw ci xëtam mu njëkk wax nu lu mel ni ki noonu bu dee ci côté palmarès la ba tey yëglikaay bi ñëw na ci ñoom ñaar boo xoolee ci ay victoire Modou Lo am na ci lu toll ci 20 victoire Eumeu Sène lam ca am dix victoire lay tollool ay défaite Modou trois la ci am Eumeu seen am ca huit bu fekkente ne ay match nul la boo xoolee yëglikaay bi jàpp na ne ki nga xam ne nii moom moo di Modou Lo benn match nul la mas a am Eumeu seen moom match nul na ñaari yoon ay trophée ANPS tamit yëglikaay bi di suñu làmb ba tey wax na ci ñoom ñaar bu dee Modou la am na ci ñaari yoon yoo xam ne ni gagné na ko Eumeu seen benn yoon la ko mas a gagné wàllum roi des arènes tamit mu mel ni ki ñoom ñaar ñoo fa tolloo Modou Lo gagné na ko

na ne ki nga xam ne moom moo di Eumeu Sène moom li am ba des daal mooy ah mbër mu jara jaajëfal la ndax nag boo xoolee 98 la ñëw ci làmb ji ba tey te nee na boo xoolee yàggaayi carrière am leen mayu ko lu dul maanaam mu def expérience bi nga xam ne dajale na ko ba tax na sax jàpp na ne tey expérience entraîneur sax Eumeu Sène amee na ko ngañ jaañ moo gisee nu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ci xët wu njëkku yëglikaay bi di sunu làmb ka nga xam ne nii nag moom moo di bombardier mi ngeen xam te nekk ca mbuur maanaam moom nag ñetteeli combat am daal la jëm fi ci wàllum MMA ba yëglikaay bi di làmb xëy tey ñëw wax nu ko diggante ma ka nga xam ne nii moom moo di Jérôme daal Jérôme la Baner daal la Bombardier war fas yéene daje le 8 mai lay am fa nga xam ne nii moom moo di ca Lyon ca France yëglikaay bi suñu làmb xëy tey ñëw wax nu ko ci xëtam wu njëkk ba tey bu nu continuer ci xët wu njëkk yëglikaay bi ka nga xam ne ni nag ab promoteur bu bees la ñu koy wax Ibrahima Diop moom moom daal ne na ci bu neexee yàlla fii ak fan yu néew moom Ibrahima daal ne la mu fas yéene yoo xam ne yu mag la mbër yoo xam ne daal ci côté popularité am nañu nañu ko bëri itam duñ ca tirise moom daal nee na li mu fas yéene daal maanaam yëngal lu baax a baax a baax daal la fas yéene def moom mi nga xam ne nii nag moom moo di Ibrahima Diop yëg li kay bi di suñu làmb xëy tey ñëw seq moom waxtaan moom mi nga xam ne nag moom moo di Abdoulaye Dembélé moom moo doon waxtaan ak ki nga xam ne moom moo di Ibrahima Diop ba tey bu nu continuer ci yëglikaay ba nga xam ne ni moom moo di sunu làmb ak la nga xam ne nii moom moo di ubbiteel sa somba daal daa mel ni gars yi ñu ngi koy ñaxtu zil bu sali moom la mu xëy wax daal li nga xam ne nii moom moo di état bi li mu war a def mooy fexe ubbi làmb ji ñu bëre ndax nag lu ko mooy immigration clandestine bi day gën a continuer di dem kon ubbi làmb ji la ñu war a def Moodu Fall moom mu ba nga xam ne ni moo nekk ci jëf soog a nekk moom moom état bi la jàpp ne daal moom moo bëgg a rey làmb ji ba tey bu ñu fa jógee dem fa nga xam ne moo di ci record record moom maanaam wàllum làmbi simple ji tey la xëy samp laajati kan moo ci les cinq meilleurs wala boog cinq maires yi nga xam ne ni ñoom ñee nekk ci bëre bi nga xam ne àndul ak dóor ki nga xam ne moom moo di Ambroise Sarr moom ñemu tànn ñenn la Fabi Felir la gis ak ki nga xam ne nii moom mooy alimu ak ah, waaw alimu ak yaamu Yékini ak rëg-rëg moom daal ñii la gis ngóor semu Diouf tamit ma ji fa nga xam ne moom moo di Adrien Senghor moom ka nga xam ne ni moom moo di Seck Jilaas la wax Duuru Baka ak ka nga xam ne moom mooy Bugal ak daam Gakou moom ñooñ la gis ka nga xam ne nii moom moo di Maam Ndour di ancien lutteur moom tamit Aliou Badou la gis ak ka nga xam ne nii moom mooy Maam Sanu Ousmane Gakou ak nga xam ne nii moom moo di rëg-rëg ak mbalk maak loolu daal la gis moom raay ba tamit di collecteur nekk ci mbuur moom ka mu gis mooy usu ndob rek daal la gis su lay boyaar ak faabi yikini ak rëg-rëg raay ba loola la wax ka nga xam ne nii moom moo di jaan jilas tamit nekkoon ancien mbër moom maam njambaan la gis docteur fay su lay ak ka nga xam ne ni moom mooy Aliou Diouf ak ka nga xam ne moom moo di rëg-rëg di wala boog Amath Diouf moom ka mu gis daal moom tamit ñamu jàpp daal jàpp na ne Yamou saar la ni Aliou Diouf Faby ak Hôtel joor loolu mooy la nga xam ne ni daal moom la ñu record tey ëndil leneen loo xam ne tamit record ñëw na ca mooy ñi nga xam ne ni ñoom ñoo di waa Vox Arena ak licence ba nga xam ne nag jënd nañ ko ngir fas yéene nag tëgg seen ay combat yi nga xam ne nii daal ci lañ jëm nii yëglikaay booba tamit mu ngi xam ne daal ka nga xam ne moom moo di Boucar Ndour daal fas yéene nañ ko nag defalab sargal fa nga xam ne nii moom moo di ca arène Adrien Senghor yëglikaay bi di record xëy ñëw tey ba tey wax ñu lu mel ah Equivox yi wala boog téléspectateur u Equivox yi maa leen di bëgg di leen ziar ak waa Vox Arena yëpp du mën a ñàkk di leen ñaanal jàmm te di ko saaku ci yéen tey nag ni ngeen ko xamee ñu ngi ci alxames maanaam jeudi 10 décembre 2020 ah yëglekaay yi moo xam sunu làmb la moo xam record la bu dee sunu làmb la xëtam njëkk tey xulle comme ci xëy fesal ginnaaw bu ma la nuyu ziar la yow mi nekk ci wàllum film bi di nuyu hélas bi nga xam ne tamit moom moo nekk ci wàllu montage bi di leen jàmm hmm, parce que olof ne na petax xati mooy mbokkam ndax ñoo bokk bi te bu may wax tamit ba ñu man maa gis may feeñ ak ñu di ma dégg image yi di rafet grâce à xulle mi filme la ak grâce à hélas mi nga xam ne moom mooy fi moom mooy monté kon ñooñ jar nañuy jaajëfal ñi ci ginnaaw bu dul woon ñoom dara du sotti di leen bëggee bu baax a baax di leen ñaanal jàmm waaw comme tey nag xët wu njëkku yëglikaay bi di suñu làmb la fa xëy fes ñaari mbër yoo xam ne daje nañu ñaari yoon muy Modou Lo ak Eumeu Sène Modou Lo ko ñaari yoon li ci am solo nag mooy yëglikaay bi dafa ñëw tey ci seen ay chiffres boo xoolee seen i chiffres Eumeu bi mu duggee ci làmb 98 dajeeg Mbodj Diagne comme ni ko yëglikaay bi waxee defe naa ne boobu mu lu duggagul ci làmb ndax mu lu 2006 la dugg ci làmb kon diggante bi la fa dox ci at bëri na maanaam rawee na ko lu yaatu ci làmb boo xoolee kon ama seen loolu la def am 41 ans actuellement ci li nu ko sunu làmb waxee ay victoire am boo ko xoolee ci 10 la toll ay defee tam toll ci la nga xam ne nii moom moo di 8 moom ama seen mat si niin am na sa ñaari match nul yaa ngi dégg loolu lépp def na ko trophée ANPS mu gagné ko benn yoon roi des arènes nekk na ko benn yoon confrontation yi bis yi mu seex Modou Lo da koo ñàkk ñaar yëpp suñu làmb xëy wax na loolu Modou Lo ba tey tamit ku ne xam na at bi mu ñëw ci làmb ah digganteem ak Pape Sène numéro 2 la jëkk dajel muy at boo xam ne daal atum 2006 la Modou Lo ñëw ci làmb waaw boo xoolee nag Modou Lo ci côté ay victoire boo xoolee am na ci lu toll ci vingt ay défaite boo xoolee lam ci am trois la match nul benn yoon la ko mës a def trophée ANPS gagné na ko deux fois roi des arènes nekk na ko benn nangu ko ci Eumeu Sène confrontation directe yi mu def ak Eumeu da koo gagné maanaam daje ñu daje loolu nag boo boo boo boo suivre loolu xule li mu lay jox mooy Eumeu moo jëkk muudu ci làmb def parcours am parce que Eumeu li ñu ko war a jaajëfale mooy tey yàgg bi mu yàgg ci làmb ndax 98 ba 2020 bii nu ne te carrière am macha allah des na. ba amaat na combat ak Lac de Guiers defe naa du ay caaxaan kooku boo amul hygiène de vie doo sportif de haut niveau doo fa mën a yàgg kon defe naa loolu rek mérite la ci Eumeu Sène muy compétir ba ay xale ñëw tey fekk ko yoo xam ne moo leen mag ci at mag leen si làmb di bëre ak nag nga xool ñoom ñaar wax dëgg yàlla da ngay xam ne ah Modou Lo moom moo raw bu fekkente ne dañuy waxante dëgg rek parce que dañuy waxoon keroog si Balla Gaye moom la ñuy waxaat fii rek ndax daje yi daje ñoom ñaar Eumeu Sène dafa ñàkk ñaari combat ci kanam Modou Lo kon kooku lu ci mën a xew moom moo lay raw ba tey bu ñu sax ci ay côté victoire Modou Lo mujj ñëw ci làmb ji mais boo xoolee moo am na la ci Modou am am na ci huit kon defe naa diggante bi am na sore bu ci am waaye nag loolu yëpp moo lay wan ne ñoom ñaar ku ci nekk rek jaar-jaar yi am na ak wuute waaye ñoom ñaar ñëpp ku ne jàmbaar nga ci sa wàll ku ne bay nga sa war Modou mooy acteur roi ëmma seen mii la ko jële kon defe naa ne loolu mooy li nga xam ne ni daal mooy nekk ci xëtu yëg xët bu njëkk yëglikaay bi tey ba tey ji bu njëkkam bombardier boo xam ne bëri naak ñaar ñi ku ci ne ah muy Modou Lo muy Eumeu seen moom tamit ku ne xam ne ne MMA bi moo ko dugal fii ci réew mi yaakaar naa su ma jumulee tey nag amaat na si ñetteelu combat am ginnaaw bi mu ci mujj a jongante ci Angleterre Hmm? ak ba ci njëkkoon a jogante ak Rocky Balboa mu war a jëmaat ci beneen combat boo xam ne moom ak Zorom ah Zorom la ba la la Banner la tudd ah? tubaab la nee nañ nag ca Lyon lay amee ca France le 8 mai ñun nag la ñuy def mooy ñaanal Bombardier rek parce que mooy suñu doomu dëkk ndax MMA moom sénégalais bu koy jongante ku dëkkul ci réew mi yow la ñuy ñaanal ndam kon Bombardier le 8 mai boobu na nga gagné woon Angleterre yàlla nag ni gagné bu gën sedd bi ñu koy nuyu di ko ziar ca Mbour moom Bombardier ba tey bu ñu continuer Ibrahima Diop nu fa promoteur la ñëw na ci lamb ji nee nag dafa fas yéene tëgg lamb tëggay combat yoo xam ne ni yu neex amateur yi lay doon comme Ibrahima ñu ngi lay wax ahlan wa sahlan dalal ak jàmm li nga ñëwee noonu yàlla na nga ko réussir parce que tamit làmb moom bu promoteur yi yokkoo itam du ci yàq dara day tax mbër yi gën a compétir gën a bëri rek parce que mbër yi bëri nañ macha allah te boo xoolee des fois da ciy am ñoo xam ne dañuy toog ay at bu ñu bëree ñii ay def année balance te xëy na su promoteur yi yokkoo ñu teg lépp ci yoon yaakaar naa dinañ mën di bëree ba nga xam ne ni daal du doon loo xam ne ni luy garaaw lay doon suñu frère suñu xarit Mbaye Yékini di promoteur tey ku ne xam ne day def conférence de presse hmm? ci ngoon gi fii tey day def conférence de presse fii nga xam ne nii moom moo di ci euh, corniche bi côté parcelle ci benn hôtel bu nekk foofu fa lay mbay Yékini nag ku ne xam ne ne promoteur la yàggul ci làmb di xale boo xam ne nii supporteru Yaxya Jóob Yékini la woon di ku ne gis na tey nekk ah loola ci la ba xëy nekk promoteur di tëgg làmb kon tey nañ ko déglu ji ba xam lu muy wax ba tey bu ñu continuer ci yëglekaay bi ci biir buñ fa duggee ah dañ fa fekk qualifié boo xam ne nii yëglekaay bi xamal nañu ne daal kuli daal boo xoolee cinq a ngi nii juróomet yoo xam ne nii ah Koli maanaam gëjës na koo gis mu wàcc ci làmb ji gëj naa bëre la ca des mooy Koli 13 ans ngi nii yoo xam ne nii suma ma jumulee daal ay defet yu yu waaw maanaam daal gëj na ci làmba moom Koli Faye muy mbër moo xam ne itam ku ne xam na ne nekkoon na bul faal daan ànd ak Mohamed Ndaw Tyson nag Eumeu Sène di waaw di doomu séréer waaye gis nañ ne at yi Koli ah gisatuñ ko mu wàcc ci géew yu bëri kon nag lu mën a xew daal xam naa ne kon fi mu nekk dafa mel ni xaw na sori làmb ji moom Koli waaw ñuy jégalu muy mbër moo xam ne nii tam vraiment bi mu ci toll wane na par def na lu leer a leer a leer a leer acteur wala boog waaw balaa ñuy dem ci acteur sax dañuy ñëw ci Jules bu Sali sil waaw sil de sariya ah. waaw moom nag daal fi mu nekk nii daal ci mbirum xëy maag employé ak bëre ba wax ne na daal li am solo mooy état bi ah nañu ubbi làmb ji mbër yi mën a bëre su ko defee immigration clandestine a wàññeeku waaw ma koy wax ne daal li solo mooy état bi moom war na xool nu muy defee làmb ji ba gars yi a dellu compétir comme ni ñu koy waxee fan yii yépp loolu moom mooy li am waaye nag kantaan nag wàllum ay duggi gaal moom bu ñu ko man gëmuma buñ ko dépendre ci fen gaal yi daal nañ ko bàyyi moom ak lu mën a xew moo xam làmb ji ubbeek mu bañ a ubbee ci yem nañu bàyyi gaal yi te bu leen solution defe naa ne loolu mooy ëpp solo xullekat yi di yéeg ay gaal ndax yéegi gaal jëm Espagne ay bakkan di ci des yooyu moom defe naa c'est inutile te itam jeune réew mi soxla nañ leen parce que ëllëgu réew mi ci loxoy ndaw ñi la ne yàlla na yàlla def mu nekk ëllëg bu am euh, njëriñ pour ñëpp ñu mën ko jëriñoo acteur euh, bi nga xam ne ni nekkoon na école de Pape Dambay léegi nag jóge na fa dem sàkku xam-xam moom nag ne bopp bi daal li ci ne xule leen la roi des arènes daal la bëgg a doon moom loolu la gis ah ma ne ko nag da ngay liggéey rek roi bi moom mu ngi na bés nga jot ko waaw liggéey la rek Modou Fall président jëf soog nekk moom xëy na tey ah nee na daal état bi daa mel ni moom mooy xaw di rey làmb moom gis-gis boobu la am waaw loolu de moom gis-gisam la nit nag moom sa gis gi kenn du la ko tere xay na la mu wax xam na li tax mu wax ko ak fa ko teg record bu ñu fa demee tey dafa xeet ci lit ni mu xëyoon dem ci lit avec frappe bi ci mbër yi cinq mbër yi ci raw wala yi ñu jàpp ne ñoo ci raw laaj ay nit tey noonu la ko defaat ci lit simple bi ku ne nag joxe nga sa xalaat ñoom raay ba ñoom ki nga xam ne ni moom mooy fa euh, Diagne Djilas ñoom Ambroise sar Ngor Sémou Diouf ku ci ne joxe nga sa xalaat tànn nañu ay mbër nag ah am solo nag mooy ci mbër yooyu boo xoolee mm, am na ci ñoo xam ne sama classe gi xamuñu leen ndax ay Fabi Félire yi xam nga ah ay usu ndob rek usu ah usu ndebroog waaw comme ni ko sunu grand raay ba di waxee ay su lay boyaar ñëpp man xaw ma leen waaye dégg naa ay mbir aayoon la ñu woon ci seen jamono maam njambaan moom xam naa seetaan naa ko mu bëri ah waaw ñu seetaan naa leen yaa musaare tam Euh, tuuti tuuti rek ay hôtel Dior bii ki di wax waaw ah ak Seck Jilaas nii moom xamuma leen waaw waaye li ci am solo mooy gis nañ ci benn xale boo xam ne boole nañ ko ci biir parce que luñ ko ci tudd bari na muy rëg-rëg mel ni kon moom itam moom ak yaxe jow tànnee rek tax ma tudd rëg-rëg mooy da di xale di nekk ci li simple bi kon defe naa bu ko ñi ñëpp boolee ñu bëri buñ ko tuddee ñëpp tudd ko ci biir ça veut dire que mooy la wane rëg-rëg tamit mu ngi bay waaram bu baax a baax ci li simple bu bu baax wane na ci boppam actu de l'arène ba tey ci record ñu ngi xam ne nag Vox Arena bi nga xam ne label la di structure bu taxaw di def wàllum production ci làmb yu mel ni ki noonu ànd ak Equivox TV ah, Vox Arena boobu nag jënd nañ seen licence boo xam ne ni daal jënd nañ ko ci nga xam ne ni ko ko jënd nag mooy le DG Aline Badara Diouf a ah, fas yéene nag jublu ci liggéey bi ndax ku ne xam na combat yi ñu tëgg tournoi bu cinq cinq ba ñu leen di wax cinq drapeaux yi waaw kooku bu leen ko fàtte ak Vox Arena Boucar Ndour suñu rak suñu frère ci Lutte koy sargal le 19 décembre ah Adrien Senghor yàlla nañ ci yegg ak jàmm Boucar defe naa ne itam li muy liggéey ci li simple bi wala sax ci lit en général am na solo parce que fu làmb ne dina fa dem indil ko internet yi ñu seetaan ku defe naa loolu ku yokkul yaa wàññi kon Boucar di suñu frère ñuy wax ne bésam boobu suñu bés la di ñaanal ñëpp jàmm xam nga dina ñëpp jàmm du mën a ñàkk waaye tamit odia bii sax dañ ko ciy boole ah odia waa gis nga dessin yaay nii odia daal tey fi mu xëy génn fenn la mu loo daal moom mu xëy di fépp daal dina day bëree de parce que nag mënuñoo leen ne ci seen liggéey ñoom par bëgg leen tere seen liggéey moom moom gisewut noonu bëri rek lay def waaw kër roi des arènes mu ngi noonu kon ah di leen nuyu xule di nuyu internautes yépp fu ñu mën a nekk rek maa ngi leen di bëgg di leen seet di ñaanal jàmm Lac de Guiers tamit seetaan ko démb waaw ci wax na waaw ci combat ma Eumeu Sène la mu ci bëgg ak yooyu ak yaa ngam sa ak yeneen yoo xam ne wax na ko ci waaw loolu nag dañuy bàyyi yéen ñi nga xam ne yéenay internet yi yéenay waaw liggéey ba rek lañ mënoon a def dèjà pare nañ ca waaye Aliou maa ngi koy bégee ah ca yi maa ngi marché caaro yi nuyu fan si club Babacar bi 100 pour cent Babacar ñoom Grand Lay ñoom Jiga Cédric ñoom ñëpp Baye Sall ca Paris ñoom Sall Faye du ma leen fàtte yéen ñëpp maa leen di bégee Pape Ndiaye ah ñoom Mass Ndiaye Essa Seydi ku ci ne rek Ismaïla maa ngi leen di bégee di nuyu tamit fans club Vox Arena ñoom Cissé ah wala fans club Equivox ñoom Cissé Ngari ca Brésil ñoom Fat Fat Dia ñoom ñëpp maa ngi leen di bëgg di Adama Ndiaye Aruna Camara képp ku ñuy bëgg rek ñu ngi lay bëggee Fallou ca Brésil wala boog ca Maroc sëñ Fallou Fallou ñaa maa ngi lay ziar bu baax a baax ah di ñaan jàmm xulle yàlla nañu yàlla defal jàmm barke yonente bi sallallahu alayhi